maaleykum guys yi ñuy safoo chaîne bi di Mouhalim TV ak chaîne bi di Maxvision ginnaaw ba ñu leen nuyoo tey ñëwaat si beneen vidéo comme ni ñu ko daan defee rek nu euh, koy wax euh, ci seen émission découverte découverte nag tey dañu ñëw indi leen jëmm joo xam ni ñu bari xam nañ ko fii ci Afrique waaye bari na ay soppe fii ci réewum Sénégal ak ci fépp ci Afrique rawatina réew moomu dëkkoon ñu ko doon wax Haute Volta mu nekk nag nit bu jàmbaare loolu nit boo xam ni xale yi bëgg nañ ko xam nga ni defoon nañ vidéo ci nga xam ne moo di Che mu nekk d'origine argentin waaye doon dundu ci réew ma la ñuy wax Kiban euh, moom mi nga xam ne moo di Che Guevara te ñu rayoon ko sax fële ci Bolivie Che Guevara boobu nag am nañ tamit fii ci Afrique ku ñu woowee le Che africain Che Guevara ku nga xam ne surnom surnom moo nekkoon le Che waaye fii ci Afrique tamit am na ku ñu woowee le Che africain le Che africain boobu noonu ci lañ moom la bëgg a waxtaanee mooy kan ci fin de vidéo bi incha allah nan leen wax kooku noonu turam. moom mi ñuy wax le Che africain mi ngi judd le 21 décembre 1949 fële ci Yakou. Yakko mi ngi nekkoon ci benn dëkk bu ñuy wax Haute Volta Haute Volta fa la juddoo ginnaaw ba mu juddoo moom nag papaam gendarme la woon waaye moom mi tamit ginnaaw ba mu juddoo ñu jàngal ko ecole ci la pare ñu yóbbu ko fa nga xam moo di Madagascar fa la defee li euh, formation militaire am. ginnaaw ba mu defee formation militaire ba ñu bis ci dëkk bi nekk ci armée bi commencé liggéey nee nañ bari woon na ay soppe lool ci biir armée bi nit ñi bëggoon nañu ko parce que dafa daan jël armée bi di ko jëfandikoo maanaam pour dimbali ñi nga xam ne ñoo di aw askanam. moom moomu mi ngi nekk secrétaire d'État en 1981 ci la nekk secrétaire d'État ba le 21 avril 1982 euh, secrétaire d'État de l'information en 1981 ba 82 ginnaaw ba mu daal démissionné ci ginnaaw boo xamee ni ki nga xam ne moo di njiitum réew mi am na ay nit yu bëggoon a grève mu gàntu leen faagaagal leen ba loolu mujjul antu moom nag loolu metti woon ko tax mu démissionné ñu dem en 1983 nekk na li nga xam ne moo di premier ministre waaye yàggu ci ndaxte 4 mois rek la diire coup d'état am ñu jàpp ko daal di koy dugal li nga xam ne moo di prison bi mu demee prison yàggu fa ginnaaw ba ci même année bi mu génnaat li nga xam ne moo di prison waaye nag beneen coup d'état daal di amaat coup bi nag kan moo ko amal moom moo ko amal ak benn xaritam bu mu doon àndal nee leen sax xaritam boobu daal moom moo nekk ci boppale boobu mbir bi coup bi amee ñu daal di jël réew ma moom mu jël réew mi jiite ko moment boobu mi ngi am li nga xam ne moo di 33 ans. à l'âge de 33 ans ci la jiitee réew mi bi mu jiitee réew mi li mu njëkk a def mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ministre yi mu changé oto yi doon yor nga xam ne ay Mercedes lañ doon yor mu changé ko ak ay r cinq yu yàgg sax jox leen ko ñu yor ko di ko dawal. nee nañ tamit communiste la woon waaye féministe la woon maanaam koo xam ni dañ ko doon gis lu baree bare si côté jigéen ñi muy xeex ngir jigéen ñi waaye koo xam ne la woon itam communiste woon maanaam euh, communiste mooy euh, buñ ko waxee. mooy contraire capitaliste koo xam ni mën na ni dëkk boo xam ne du am rang social ak yu demee noonu nga xam ni euh, rang social du fa am ay kii pauvre la kii riche yu demee noonu du mën a du am ca dëkk ba loolu mooy politique communiste bari na réew yu baree bari yoo xam ne ay révolutionnaire ñoo fa nekk politique boobu lañu yor comme Cuba ak réew yu demee noonu Cuba ba nga xam ne fa la Che Guevara nekkoon moom moomu ginnaaw bi nga xamee ni jël na réew mi nag ci moo créé sax li nga xam moo divise dëkk ba muy la patrie ou la mort nous vaincrons mu changé devise dëkk ba def ko la patrie ou la mort nous vaincrons moom mi tamit ginnaaw bi nga xamee ni jël na réew mi dafa changé li nga xam ne moo di turu dëkk ba dëkk bi mu ngi tuddoon li nga xam ni moo di Haute-Volta mu changé ko tuddi ko le pays des hommes integre wala le pays des hommes honnêtes noonu la tuddee li nga xam ni moo di turu dëkk ba amoon nag politique bu am solo boo xam ni doon na ko doxal ci boobu la réew moom mi nga xam ne moo nekkoon njiitum réew ma trois mois avant muy génn àdduna ci benn congrès bu mu doon amal dafa wax euh, ñi nga xam ne ñooy président africain yi mu ni leen ñëw leen ngeen wuy si sama woote te bore yi nga xam ne amal ngeen ko tubaab bi ngeen bañ ko fay ci biir conférence bi mu xamal leen nii su nekkee man rek maa toog di woote lii te wuy su leen ma fii ak déwén du ma fi toogaat bay wax loolu trois mois lañ ci teg xaritam bi nga xam ne moom la defandooloon coup d'état ba daal di koy rey fekk boobu mi ngi am 37 ans xaritam ba jël réew ma jiite ko ci lu toll ci vingt 28 ans ci ginnaaw bi nga xamee ni faat na bakkanam kooku nag mi ngi tudd Thomas Isidore Noël Sankara mu ngi gaañu à l'âge trent 37 ans ci lañ ko reyee fële ca Burkina Faso ki ko rey du kenn ku dul xaritam bu mu def ndooloon coup d'état ci année 83 bi ñu koy wax Blaise Compaoré Blaise Compaoré ginnaaw bi nga xamee ni def na coup d'état boobu jiite na réew mi. ci lu toll ci vingt huit ans ci ginnaaw bi en 2011 ci la ñàkk li nga xam ni moo di nguur ga Haute-Volta moo nekkoon li nga xam ni moo di Burkina Faso waaye ginnaaw bi nga xamee ni ci la Thomas Sankara jële réew mi ci la changé turu réew mi am na benn discours am sax muy wax ni Haute-Volta moom amul benn signification ci suñu réew wala ci suñu histoire ni ci suñu culture mu ni Burkina Faso nag moom mooy le pays des hommes honnêtes maanaam loolu lay tekk ci France ci français ci ñoom seenu làkk muy mooy le pays des hommes honnêtes moo tax mu changé tur dëkk ba tuddee ko li nga xam ni moo di Burkina Faso moomoon nag ay rêve yu baree bari ngir Afrique euh, doon xeex maanaam euh, xeexam bu gën a mag doon wax naan li ñu woowee autosuffisance alimentaire xam maanaam fexe ba dund gi doy surtout li ñuy dundee ñu koy bàyyee ci dëkk bi moom doon na xeex lu baree bari ngir loolu am muy autosuffisance alimentaire ngir tam doon na xeex tamit li nga xam moo di pauvreté parce que ku xam na ni. Euh, ci sunu réew yi ñi pauvre dañuy gën di pauvre waaye ñi am dañuy gën di am loolu nag ñu bari du duñ ko nangoo dégg waaye loolu mooy dëgg bi même neexul moom Thomas Sankara doon na xeex di ma ne ay combat yu baree bari ngir loolu am xam naa dina ci ñëwaat ci beneen vidéo ngir yaatal waaye daal pour résumer kooku moo nekkoon ki nga xam ne moo di Thomas Sankara mu ngi juddoo fële ci yàqu nekkoon ci dëkk bu ñu naan Haute Volta Haute Volta nag mooy actuel Burkina Faso ginnaaw bi nga xamee ne jël na réew mi en 1984. ci la rebaptisé turu dëkk boobee tuddee ko li nga xam ne moo di Burkina Faso avant muy faatu am na benn euh, ñu ko musa a wax ni ko euh, Blaise Compaoré mi ngi lay bëgg rey video yi sax mi ngi circulé mi ngi daal préparé benn coup ngir yow mu ni Blaise xam na ma xam ngoo xam nii bu demee ba pare ngir def coup d'état man rek moment bi ngeen koy yëg fekk na c'est trop maanaam mënatuñu ci dara te jërul sax ngeen ciy jéem dara ndax xam na ci man loo xam ne xamu leen ko comme man ni ma xamee ci moom loo xam ni euh, yéen tamit xamu leen ko maam di wax jege gum ko jege woon ak xam gu gum ko xamoon que ni daal Blaise Compaoré moom heure bu paree ngir faagaagal ko wala jëlee ko ca bopp réew ma nit mënu ci dara moom Thomas Sankara wax na loolu ci ay vidéo yoo xam ne mi ngi circulé ci réseaux sociaux yi ay audio yoo xam ne képp ku dugg ci net bi soo bindee audio yooyu di nga ko gis incha allahu bi bu ñu leen ko mënee digtal ci vidéo bi dañ leen ko digtal di leen wax loolu moo nekkoon vidéo bi ñu leen jox di daja beneen incha allah. ci yeneen vidéo jaa ngeen jëf